ورضي الله عن شمس الولاية الكبرى صاحب الكتمية عبي الفيودات شيخ المشايق مبع الإرفاني بيت الولاية ممد كل أولياء الرحمن أبي الأباس أحمد بن محمد تجاني الشريف رضي الله عنه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دلين زيار دلين نوكل تي أتمو تبارك الله تي أتمو باسمي عندك إميشان بيس في تي في أب أستاذ إسماعيل سين بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إميشان بينك تبارك الله تلبي تنلين كون ين الجمهور gu jot fii ci ATV ñu war a waxtaan dund ki gën ñëpp muy yonent bi alayhi salaatu wasalaam ndax bëgg ko farata la roy ko farata la topp ko farata la ndax yàlla moo wax ci alquran qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhbibkum allahu borom bi subhanahu wa taala moo wax ne bu ngeen ñëwee du ma bëgg bu ngeen bëggee bu ngeen ñëwee du topp seen dara bëggal leen ma yonent bi alayhi salaatu wasalaam waaye bu leen yem ci bëgg ko bëgg leen ko te roy ko moo tax mag ñu baax ñu ngi fi gis ñëpp ba ñu bëggee yonent bi alayhi salaatu wasalaam dañoo jël seen tànk ko ci sunna sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon mënuñoo doon ay jullit mukk fekk royu ñu yonent bi alayhi salaatu wa salaam ku bëgg ngërmaande yàlla adduna ak alaxira royal sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom dong nag mooy royukaay bi mom dong mom la serigne touba ne woon amatuma luma ma bëgg ci aduna lak kalkali lak ka niyati la ka xurbati malbasi lak ka Cheikh El Hadj Malick tollu fële ne ko lii dala ma dal de walaysa li amalun alxaka ya amali si wal mahabati wa taadimi wa salami Cheikh na sasaat bu ne leen sama maama de waaye li len dala ma dal de wallahi ma fi ardi wa samaayi kufaan li ahmad min al ashaayi mbooleem ku fi jaar di gor yàlla mba ku ba sa yitte mooy sayduna muhammad sallallahu alaihi wasallam